niñ ko andi woon ak yéen nag bi weer wi feeñee ak léegi ci waajal màggal gi nga xam ne nii moo di màggal ñaar fukki fan ci weeru muharram atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci gàddaay gi dëppoo woon ak 29 euh, euh, septembre 2018 boobaak léegi nag ngeen ànd ko ak waa diwaan ak mbooleem média bi nga xam ne ni ñoo nekk ci réew mi ak bitim réew particulièrement média bi nga xam ne ni ñoo féete fi ci Touba ñu gën leen a xam ci presse en ligne ñu àndoon ak waa diwaan ci ay euh, conférence yu am solo ci ay waxtaan ay découverte ay documentaire ngir siwal ak waajal bis boobu nga xam ne nii euh, ci lañ nekkoon ba démb ñu yendu ci bis bi tey jii nag xam ngeen ne ñoo ngi ci cëppaandaw gi di jataay bi nga xam ne nii moom mujj ci bis bi muy cérémonie officielle bu màggal gi cérémonie bi nag euh, naka jekk ni ngeen koy gisee at mu jot di ndaje mi nga xam ne nii ki nga xam ne nii moo di kilifa gi wala ki nga xam ne nii moo nekk ci buntu këru Cheikh Modou Moustapha di sëñ teew na jamono yi ànd ak mboolem njabootug Cheikh Mouhamadoul Moustapha waaye yeneen njabootug Serigne Touba gi euh, ñoom itam bàyyeekoo nañu fu nekk ñëw fii ñu nemmeeku fii également euh, teewaayu autorité administrative yi euh, ki nga xam ne ni mu ngi bàyyeekoo ci nguur gi ak ñi nga xam ne ni moo di préfet sous préfet ba ci gouverneur de la région ak maire yi ak yeneen ñi nga xam ne ni dañoo bàyyi ci yeneen ñoom bàyyeekoo ci yeneen parti politique yi ñoom ñëpp ñëw nañ jamono yi ngir nag saafonte ak sëñ bi jokk mbokk gi waaye xam ngeen ne cérémonie officielle ginnaaw bu sëriñ bi dalalee gan ñi nga xam ne nii dañuy bàyyeekoo fu ñëw bokk na ci message bu am solo bi nga xam ne ni ñu ngi koy xaarandi jamono yi sëriñ bi daan ko joxe mooy message bu soññe boo xam ne nii señ bi da koy def ñeel mboolem mbokki taalibe yi ak jullit yi waaye message boo xam ne nii sëñ bi koy def ngir waajal nag bis bi nga xam ne nii moo nekk suñ kanam muy 18 safar kon cérémonie baa ngi nii ni leen ko waxee léegi mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha teew na mbooleem njabootu Serigne Touba teew nañ mbooleem autorité administrative yi moo xam muy nguur gi wala ñeneen teew nañ ngir ànd ak Serigne bi nag ci jataay bi nga xam ne nii euh, mooy jotaay bi mujj ci màggal gi ñu fas ko yéene ànd ak yéen lépp lu fi am ngeen mën ko dund jërë ngeen jëf. le député Mbacke ñu lay nuyu di la ziar ngeen ñëw euh, ci bis boo am solo muy bisu màggal gu njëkk ngeen teewal fi euh, délégation PDS ban yëg-yëg ak ban gis-gis ngeen am ci bisub tey bi en tant que ndawal PDS. Euh, asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ak turam santam tey ji am nañu mbégte bu rëy ci teew gi nga xam ne teew nañu ko ci màggal gi nga xam ne mooy màggalu Cheikh Mouhamadoul Moustapha Al Karim doon màggal goo xamante ne mooy màggal gi jiitu ci yoonu murit doon bis bu am solo ndax bis bi ci la ko tedd ki seexul xadim euh, ñibbisi woon Touba doon bis boo xamante ne bisu xéewal la bisu ngëneel la tey jii nag am nañu mbégte mu rëy ci tey teewal fi président Abdoulaye Wade teewal fi Madické ñaar teewal fi waa parti démocratique sénégalais yëpp. sëriñ bi euh, bisu màggal gi démb gis nañu tuuti li nga xam ne ni bi mu tawee te ndox mi xawna ko galankor lol yen en tant que député yen mebet wala yen xalat wala yen gis-gis ngeen am ci fi ak ñaari at na ci jamono ji nga xamne ni magal tuba day daje ak euh, li nga xamne modi nawet. waaw lolou liñu ci am yag nañu ko wax ndax dañ daan faral di wax ne tuba ag na fo xamne limu gëna soxla moy assainissement ndax ag euh, na fo xamantene assainissement lañu gëna soxla ndax tay ji bo xolé tay tuba moy deuxième ville du Sénégal. te ba léegi amul assainissement ca bu ñu doxee tuuti ci kanam ñaari màggal ñetti màggal ci kanam waxuma la màggal gi waaye màggal gu mag gi sax day nekk ci diggu nawet bi ca bu boobaa yaakaar naa képp ku màggal si boo ñëwee ci biirum ndox ngay màggalee loola nag li ñu waxoon ministre bi rek mooy war nañu jël ay matuwaay pour Touba ñu assainir ko ndax jot na ndax tey ji boo xoolee tey deuxième ville di Sénégal ca ba léegi amul assainissement euh, loolu jàpp naa jaaduwul jot na sëkk actuellement ñu wut assainissement pour Touba. Serigne Mbacké Sylla ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la ndokkeel nag ci euh, jataay bi ñu dajee muy euh, benn ci bis yi am wàccuwaay ci euh, yoonu murit di màggal gu njëkk gi ñu gën koo xam ci màggal Daaru Xuddoos di bis bu am solo lan nga nu mën a fàttali tuuti ci taarixu bis bii nga xam ne moom lañ doon màggal démb. jërëjëf sëriñ bi maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ni nga ko waxee ñoo ngi leen di ndokkeel ci bis bu am solo bi di bisu màggalu Daaru Xuddoos noonu la siiwee waaye itam di màggal gi njëkk mën nañ ko wax ci yoonu murit liñ ci mën a fàttaliku nag lu rëy la ndax day fàttaliku yu daw yaram yoo xam ne mënees na koo fàttaliku ci bis bi ndax euh, suñu yaakaar euh, Cheikh Ahmad Bamba ci lañ ko noppee gis ci saayir defe naa loolu rek doy na sëkk euh, ak fàttaliku boo xalaatee koo xam ne mag ñi muy jamonoonteeloon te nekk ak ñoom ci njaarim bu masaan génn dañuy jël seen kanam yi këpp ko ci suuf ñenn ñi bëgg ko lool ba jaral leen lu ne bis boo xamante ne nag noppi nañ koo gis ci saayir li nga xamante ne mooy dale dal ko ñu indi ko fii ci dëkkam bu tedd bi bis boobu bis bu rëy la sëñ Modou Moustapha nag jàmbaar ju rëy jooju nga xamante ne moo ko wuutu tamat sa doon nga xam ne tey bu ñuy wax yoonu murit sëñ Modou Moustapha ci boppam man na ñoo wax ne mooy yoonu murit ci waxinu ku dégg jamono ndax Serigne Touba bi mu fi nekk résidence surveillée yooyu mu nekk fukki at ak juróom ci njaareem euh, bi mu fi bàyyikoo sëñ Modou Moustapha moo taxawal dëkk bi di Touba fii nga ma fekk tey ci Daaru Xuddoos ci penc mi man wax ne fi la sëñ Touba nekkoon ca nekk gu njëkk ca Daaru ca Touba njëkk ga suñ borom fiir lool ci nitu yàlla yi lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci seenub xol rek suñ borom wan ne leen man duma bokk ak xoluk nitu yàlla dara tax mu xañ sëñ Touba dëkk dëkk gum dëkk Touba sëñ Modou Moustapha indi ko Touba waaye nag taxawal Touba ba Touba di Touba mooy indi fi abraay Euh, naal fi juma tàmbali ko ba mu sori mu door a bàyyi liggéey bu am solo bii woote woon bis bii nag ngir ñuy fàttaliku jàmbaar jooju di Serigne Touba kon daal liñ ci mën a fàttalikoo jàmbaar dëgg dëgg dëgg mën na cee feeñ mooy mat gi nga xam ne sëñ Modou Moustapha taxaw na ko ci ginnaaw waay juram ba àggale mboolem naal yi nga xam ne sëñ Touba bàyyee woon na ko taxawu njabootu sëñ Touba gi nga xam ne jamono jooju ñi ci ëpp ay tuut tànk lañ waaye itam seexi Serigne tubaa yi nekkoon fi ñenn ñi mat ko way jur ñenn ñi fees dell ak Serigne Touba ku war a ñëw yiir leen rek kooku jàmbaar dëgg nga war doon kon jàmbaar ak sëñ Modou Moustapha feeñ na lool ci bis bu tedd bi tey. sëñ Moustapha mu mel ni ni nga ko waxee léegi bis bi euh, bokk na ci li nga xam ne nii moo ko wëndu wala li tax mu am muy ndigal ak engagement boo xam ne nii Cheikh Modou Moustapha defoon na ko ci ndénkaane Serigne Touba Seexul Xaddim bis boobu ak jëf jooju lan lañ ci mën a jàngatee wala lan lañ ci mën a jëlee comme bind rawatina murit yi toll ci jamono ji ñu nekk nii. waaw kay bind bu rëy lañ ci mën a jëlee wala bind yu rëy bokk na ci bind yooyu mooy nit koo xamante ne da ngay am ak dogu suñ Mbour Moustapha dafa amoon ak dogu lool xam nga bu ñu ko doon wax tey mooy nit koo xam da ngay décider xam nga kilifa daa war di jël ay décision bu fekkee mënu koo jël rek daanaka nekkatul kilifa dafaa nekk rek sëñ Modou Moustapha ku mënoon a jël engagement la ci lim nekk yëmut ci loolu waaye ku jàmbaare woon la njàmbaaram googu yóbbu woon ko ci nangoo liggéey lool ndax boo ko bi nga xamante ne naal na liggéey bi te muy lu rey da cee xaarut kenn dafa tàmbalil boppam ci la sanc dëkk yu bari yoo xamante ne sëñ Modou faa sanc na ko doon ko jàmbaare ci wàllu mbay waaye itam nag doon koo xamante ne itam ku amuk ubbeeku la cim xel bari na loo xam ne bu ko daan def ba noppi day wax ne ak wilaaya moom bu doon ne euh, téeméer la bala ma caa jël benn danaa jëfandikoo juróom-ñeent fukki xel ak juróom-ñeent ba noppi door a jëfandikoo ak wilaaya kon ku amoon xel la ku yewu woon la ku nangu woon a décider ci mbir la ku jàmbaare woon la ku nangoo liggéey la kon liñ ciy jàngee ci bis bi ak di ko fàttaliku sëñ Modou Moustapha mooy kilifa gu nangoo liggéey. bis bi day tey man ñetti dégg-dégg laa ci am ëpp na ko waaye loolu sax xaju ci. Euh, bis bii de tey xam nga ni ñu koy màggal mooy bis bi Cheikh Ahmadul Khadim génne woon àdduna dem wuy ji boroomam subhanahu wa taala euh, te xam nga ñaare kuy génn àdduna ku ne in alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu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 bis booy génn àdduna dana ñëw xamal na la bis bi jeex na waaye nag dara desetu fi lu dul nga ñëw wuy si nga ne ko man am naa ay projet yu ma war a def sama gannaaw war na maa tabax juma war na def lii war na maa def lii Cheikh Al bi mbir moomu agsee ci moom fekk na waajal na bu yàgg Cheikh Mouhamadul Moustapha mu wutu ko ci lu mel noonu mu daan ñaanit ne bis bi may génn àdduna di dajeeg sa borom yal na bis yi ma dàqal ci man yal na bis yi nga xam ne moom laa gën di bégee kon mu mel ne bis boobu kon ñu bari xamuñu ne bisu mbégte la pour xaadimu rasul waaye itam bisu sant la ci kaw ñu ñu nekk ci suuf lu tax Cheikh Mouhamadou Moustapha moo tax Cheikh Mouhamadou Moustapha sëriñ bee ko waxoon ne ko nii ma ko bëggee soo ma ko ni defalee ba ma amee ko ni ma ko bëggee woon Mouhamadul Moustapha bis bi loo am ci ko am kon cant war na la Cheikh Mouhamadul Moustapha ne kon bis bi sëñ Touba di dajeeg boroomam muy bis bi ko dàqal ak bis bi nga xam ne lu ma am ci laa ko am kon bis bi man du bisu naqar ci man bisu cant la ci man bisu mbégte la ci sëñ Touba kon bis boobu laay woo nit ñëpp ñu ñëw woy si ko yàlla dogal na nag Cheikh Mouhamadul Moustapha bi mu koy woote. Eh, bokk na ci sunu wayjur ñu mu ko njëkk wax ñu ñëw fekkee si bis bi nee na keroog bi ñu fanaan see ci dëkk bi am na ci dëkk bi ñoo xam ne dañ ñoo wax ñu ne lu ngeen di wut ñu ne ko dañoo bés bu ñuy def suba màggal gu sëñ Modou Moussa santaane ñu ne ko ah, xanaa yéen a ko dégg waaye noonu de yëgunu ko góor gi ne leen bu yor-yor bi tàqee di ko bu yor-yor bi tàngee da ngeen xam ne xew-xew am na loolu nag bu nu yàlla mayee bañ di ko célébrer tey. sëriñ euh, Ahmadul Muxtaar jiite ko di ko xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha ak njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha yëpp duñu man du sant yàlla fekke ko an ànd ko yéen waaye bis la boo xam ne daal lu ci bëgg mën nga koo am waye nak mi ngi melni asmaul lahul husna turi yalla yi bari na bi firi njëriñ bi firi lor waye cëf ka dal li xam kenn ku ne la nga la nga la nga sa bagage ba nga am tek ko ci kaw cëf la mo la yobul lolo fo bëgg pas-pas a ciy jë sant yalla sant yalla gëna ti am yaakar xamne am nañu ay kilifa yu mat kilifa kilifa yo xamne dañ ñoo digal te liñ ñu digal dinañ ko def moy wote nañ jam digal nañ ñu ñu tënku ci jàmm moom mooy ndigalu sëriñ bi euh, tëdd nañu njaaxaan naa itam ba nga xam ne ñun ñi nekk ci opposition sunu xel dal na ndaxte moom nee na ñaan rek la mën pour jàmm am mais kilifa am lay déglu te kilifa googu mooy kilifa ñëpp donc jàmm ji mu santaane ci la ñu tënku parce que du ñu bàyyi Touba Touba la ñu dëkk Touba la ñu bokk Touba la ñuy revendiquer kon jàmm jooju mu santaane ci la ñuy tënku leneen li ci des dal na sunu xel ndax tëdd na njaaxaan naay maanaam. jëlul kenn teg ci kanamu kenn. discours la bu am solo boo xam ne làmb na lu bari parce que andi na lu bari ci histoire yoon wi ak taxawaay ak liggéeyu Cheikh Mouhamadoul Moustapha ci anam boo xam ne umpan nañu bari te itam histoire comme niñ ko waxee dafa am solo lool parce que génération bii nga xam ne fekkewuñu lu bari eh, xamal leen li weesu. ci ay taxaway yo xamne ne ay taalibey Serigne Touba ñoko ko taxaw ba mbir mi agsi fii loolu dana leen soññi ci ñu xam seen bop ak taxaway yi ñu wara am pour jëlé mbir mi fi mu nek yobbu ko fanen fu ko gëna kawé lolu mo waral nak euh, muy discours bo xamne ne lu am solo lu ñepp bayyi xel wax dëgg yalla kon noo ko ci sant bu baax di sant tam Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xamne ne mami na magal gi ren euh, ci anam en tant que xalif général dimension bu yéemee ndax xam nañu ne euh, gud ñaari guddi guddi gi jiitu màggal gi ak guddi gépp gépp moo ko jiite fii ci kër Serigne Touba jataay yi fa am yëpp ngir euh, màggale ko bis bi ci loo xam ne defloo ko kenn moo ko jiite moo ko jiite ànd ko ak bokk yi ak taalibe yi muy lu am solo e loo xam ne kon ñu ngi ciy sant bu baax di ci ndokkeel ñëpp. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين نجيك جات لي رك. موي سنتي على بباخ باخ. بمنيكو فكلو. لول نك لين تيجيك رك. تكتلو سياح الخدم لا. يفو سياح الخدم لا. جفم لا. نخ نيم خامي لا خوان ديم. لا خامي لي خو ألق. موتاخ نك تي وقتو وم كو واري def mu boole leen benn mission rek la muy mission Cheikhul Khadim euh, euh, Serigne Touba nag lim yor dafa xajul ci jenn jëm xajul ci ab lim ca lum joxe lu ci nekk lam joxe a ëpp doole kon nag faw mu boolewaat leen ba ñu ànd liggéey bi ci mission bi moo tax alhamdulilah kon buñ ko agsee ba fii mu mel nii mu mel loolu sant yàlla ñaari mbir moo ci nekkoon ci bis bi yoo xam ne Cheikh Moustapha moo taxul mu jël ko doonul woon mbiru festivité rek doonu loon mbirum rassemblement rek dem wante dafa doonoon mbir moo xam ne nii ñaari yitte la muy ndigalu ko Cheikhul xadim joxoon mu mottali ko mbégte mu ci Cheikhul Khadim di am muy sam muy dundal mbégte googa wante nag mu yor mission boo xam ne taalib yi war na leen di leen dajale ci benn barab mu jëlaat bis booba mu doon bis boo xam ne da leen dajale ñoom ñëpp ci Touba fàttaliwaat leen mission sëriñ bi fàttaliwaat leen li ko taxoon a jóg. ak li ko taxoon di liggéey ñoom ñëpp ñu àndaat ca joxe leen message ñu yóbbu la ko ba déwén ja kon nag euh, boo xoolee ci ci jamono ji daanaka loolu day lu am solo ndax aw askan même république sax boo ko yoree euh, da nga jekki-jekki bis boo xam ne ca ngay def message à la nation nga xam ne ñëpp xam la nga bëgg li nga weesu la nga ca def ak li ngay jëm ci kanam la nga la nga la nga cay séentu ak li ñu am nuñ koy bokkee kon nag moom Serigne waa mooy nation ndax Serigne Touba mooy diine mooy lislaam kon nag loolu bis bi yi ko ëndoon yëpp mooy loolu kon nag buñ ci demee ba eh, ñun suñ suñ wayjur yi tàmbale ko suñ maam ya ba suñ baay yu tedd yi ñoom ñëpp ñu koy dundalee ba mu agsi fii kon ñun ñëpp li ñu war def mooy di jàngat ca la jiitoon di jàngat ci ñoom ñii ñu jamonoonteel ba bu ëllëgee ñu xam ñu ni nan fan la ñu war a teg suñ tànk ba duñ mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi bëggoon. sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér. te bul faale ko wuy seek farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat na yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha